سرور في ربوع الخير ساجي لها شرف كمجد لآلي سرور في ربوع الخير ساجي لها شرف كذا مجد لآلي سرور في ربوع الخير ساجي لها شرف كذا مجد لآلي سرور في ربوع الخير ثاني لها شرف كذا مجد لآلي بسم الله أذكو امتداه بحمد الله أبدي الشكر لوالي مرارا في ربوع الخير ثاني لها شرف كما مجد لآله بسم الله أذكو امتداهي بحمد الله أبدي الشكر لوالي سرور في ربوع الخير ak sa ndimbal ci ñun gis eh, ñun de amuñ leneen lu ñuy wax lu ñu jërëjëf si gannaaw jërëjëf wax la suñu ko amuñu wax la ah docteur suñu xol sedd de ko ci kam suñu xool mm. seet na lool sant di sekk mm. kontaan nañ si docteur lool eh, xam naa di la ñaanal yàlla mm. eh, yàlla la yàlla fay yàlla na yàlla dimbali eh, wërsëg bu yaatu bon na gudd fan ak martaba yi kawe kawe ay garaat yi kawe kawe lépp lay ragal yàlla boo ci tëg bët lépp li nga bugg yàlla na ko yàlla defal yàlla na yàlla fanqal seytaan yàlla na yàlla làq fu yàq yeggul képp ku lay xaar yàlla xat bi buñ bu leen yore yàlla ko sax si soxna si kontaan nañ de ah, ah daaw def ngeen ko li ngeen defaat ko kon xanaa kontaan nañ. Ah. incha allah di jégalu ci géej bi. déedéet déedéet déedéet jot amul jot amul jot amul jot amul. comme ni ñu ko defee woon daaw rek. dëgg la dëgg la. ñëw baaxantal. incha allah ñëw barkelu. dëgg dëgg la ñëw ziara. dëgg la dëgg la dëgg la ñu contribution ci gàmmu. dëgg la macha allah ci ndigalu. dëgg la kilifa dëgg la docteur Aïssatou Bari dëgg la macha allah moom moo jiite région bi yëpp dëgg la ndeysaan ndeysaan tey ah, ah, moom moo yor lépp loo xam ne tasaare xibaar ndeysaan ndeysaan ndeysaan ak sëñ Abdou Seck ndeysaan asmia ndeysaan macha allah moom la ñu àndal macha allah vraiment di ñëw rek comme ni ko defoon daaw. ndeysaan di ziare leen. leen kontaan na mu leen di ziar bu baax. macha allah macha allah mu leen di ñaanal yàlla yàlla may leen. amiin yaa rabbi yaa rabbi yaa na taxawaay bi ngeen askan bi. dégg la dégg yi ngeen di def aussi ci askan bi. yéen a baax mu leen ci masaw baax baax a baax. macha comme ni ñu ko defee woon daaw rek. noonu lañ ko. defee ko fas yéene defee. incha allah di ñëw di eh, ñëw lépp ñu def di ren déwén. incha allah ko du ëpp loolu. incha allah eh, comme xamee nañ ko noonu depuis daaw. dëgg la kay léegi loolu moom dafay wéyee. dëgg la dëgg la incha allah demee ba ñu toxal ñu dem feneen. dëgg incha allah ci ñuy wutu dañu ko ne ah lii ak lii ak lii. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg moom. dëgg la bu jotee dafay ñu continuer. incha allah incha allah état moom. dëgg la demal maa ngi woon

لها شرف كمجد لآله